waaw mbuurkat li ma ci mën a wax mooy euh, dafa bari euh, lu ci jaarul yoon donc loolu nag mën naa ci un peu féliciter le président actuel le président Bassirou Diomaye parce que bi mu ñëwee. Mhm. gis ni dafa bari lu jaarul yoon ci dossier bi ñëw na Thiès invité ñu ñu ànd ak moom une visite. sur le mhm. site bi mu paree li mu ñu wax mooy mbir mi dina ko régler parce que loolu mënul jàll. après loolu yónnee na fa un comité technique ad mm-hmm. boo xam ne bi mu ñëwee rencontré na tous les maires ak toutes les autorités comité bi bi mu ñëwee aussi li ñu ko wax c'est très simple bi <coughs> dossier bi. Mm-hmm. premier décret de déclassement bi le président Macky Sall moo ko jël bu ma jumul vers juillet 2022 mm-hmm. mooy bi concerné 484 hectares def Mbour 4 trois zones zone à restructurer 135 hectares la zone d'extension 176 hectares uh-huh. ak la ZAC 173 hectares uh-huh. trois zones yooyu la def décret décret de déclassement d'accord bi mu defee loolu Macky Sall moment bi mu koy def boobu ñu ngi jëm on à la veille des élections législatives xam nga wax naa la fii léegi uh-huh. local yi comme dañ leen a dóor. Mhm. ñu jàpp ni loolu euh, peut-être ay gént la mënul nekk ils ont voulu prendre leur revanche pour les élections législatives maintenant en quoi faisant. Mhm. en faisant de Mbourkat une arme politique. parce que jàppoon nañu bu ñu déclassé Mbourkat ci période boobu. day mhm, am dara population affaire bi dina renversé wu. te comme moment boobu. Yankhoba Diattara moo nekkoon ministre. Hmm. ñu boobu ñu ngi mburoog soow. ñu ngi ci mburoog soow bi. <laughs> donc Idriss Seck nekk président conseil départemental. Hmm. collectifu Mbourkat moo dem seeti Idriss Seck super campus. Hmm. Idriss Seck recevoir leen woo Macky Sall Macky Sall jokkoog ñoom ni leen décret baa ngi nii sama kanam signé naa ko décret de déclassement bi. yaa ngi dégg li wax est que. dans une république. le maire est on saute le maire. ñu jéggi la ñu jéggi le maire. dem waxtaan ak collectif bi parce bi lañ jokkool directement. Mm-hmm. leen décret baa ngi nii. man décret boobu ba tey fii may tax wax ak yow jotuma ko officiellement par la voie hiérarchique ci net bi laa ko amee comme ñëpp en tant que maire de Thiès Ouest Mbour 4 nekk sama sama quartier bu nekk sama commune. ñu jéggi la ñu jéggi ma parce que je suis la l'opposition pire ñu jël dossier bi gouverneur ba fa nekkoon tudd Alioune Badara Mbengue ñu confier ko dossier les élus ñun nga xam dañu ñu fal. directement population yi ñoo ñu fal. Mm-hmm. kee nga xam dañ ko nommé. xam ni quelque temps après décret jëlee ko fa nekkatu fa géreetul dossier bi xamatu ci dara ñu bàyyi ñu fa nit ñu fa ñukk géré ko dossier moo tax li ci am yëpp comme jombe mën ci am moom ci boppam <laughs> le gouverneur moo ñu ñu am ngeen ci 65 parcelles moo ñu ci sédd ci loo xam ñoo ko moom ñun. man maa waroon séddale. yow ñu sédd la. man ñu sédd ma est-ce que comprendre te code des collectivités territoriales wax naa ko comité bi bi mu ñëwee boo demee ci article 301 bi daf ni teeru domaine national bu ko état jëlee def ko ci titre muy titre de l'état mm-hmm. maire ba nekk ca commune boobu maire boobu moo war a nekk. le président de la commission d'attribution des terrains de parcelles loolu article 300 la moo ko wax ci code bi ci mhm. ñu bàyyi ma fa jëm jël gouverneur bi jox ko bala ciy sédd bala ciy sédd nga xam man maa waroon di njàkkale <laughs> man ñu ma fa ñëkk kam naka mhm. yàq bu naqar léegi tey lu ñu mën a jàpp donc li ñu mën a jàpp mooy mhm. pour le président bu fekkee li mu woote loolu la bëgg on est d'accord mooy ñu defaraat mbir mi jubbanti mhm. mooy ñu respecter la code bi li mu wax. Ah. man mhm. maire bu Thiès Ouest. Mhm. Mbourkat nekk sama commune. commission d'attribution de parcelle am Mbourkat. jox la ko maa ko war a jiite. d'accord te li may def aussi su paree code bi li mu wax. sous-préfet bi nekk ci. sama euh, commune. moo koy valider. donc du dañ may jox nii rek bàyyi ma may def. nga def non j'ai il y a d'autres membres yoo xam ne président ñoom parce que dañuy nommé par décret président mmh. bu ñu liggéeyee ba pare la ñuy liggéey mmh. sous préfet moo koy validé donc loolu lañu war a njëkk a commencé ñan ñoo compétent pour gérer mbir mi deuxièmement actuellement fii ma lay wax ni waa Mbourkat li leen gën a ñor mmh. mooy quatre cent quatre-vingt-quatre yi amul problème maanaam fi nit ñi di naan dañu jël Mbemba wala diw jox ko nangami hectare hmm. loolu nekkul ci 484 hectares muy première zone bi ñu déclassé woon mu nekkoon premier décret bu 2022 hmm. fi am problème mooy deuxième décret bi bu 2023 bi créer nouvelle ville d'accord nouvelle ville bi mooy coow li coow li foofu la ñu jël ay hectares jox ko ay nit hmm. d'accord bi ñu ànd ak président tamit di visiter foofu lañ toog taxawoon teg carte mu génne carte bi di wax ñun maire yi ñu taxaw foofu moo am problème. d'accord te foofu concerné wul commune Thiès Ouest foofu Kër Moussa la bokk. d'accord donc dañ ko ñaan collectif bi y compris man sax. oui parce que ñun ñëpp a ci lool. Mhm. comme fii amul problème. Mhm. suspension bi mu def mu lever ko pour zone boobu 484 yi leen yitteel yéen. voilà nga xam ni. Mhm. dina permettre collectif bi. ñu continuer di leen jox seen i titres ñu mën a tabax. parce que ay néew moo ba dem ci forêt bi. d'accord nga xam dañ ko tere nit waru fa dëkk. Mhm. ñu fay fàq di fa tabax. des ko fekk leen fa toj seeni kër. donc ay néew di doole ñoo tax problème bi am. kon bu ñu demee ba solution am. Mhm. solution boobu dafa war a profitable néew di doole yooyu. c'est important ñu bañ leen a lor. Mhm. donc ñu yëkkati ko permettre ñooñu ñu continuer jot seeni titre mën a tabax. mais permettre ñun aussi parce que bi ñuy def budget dañu defoon ay prévisions par rapport ak affaire foncier. ñu war a am ci foncier. frais de bornage autorisation de construire à Mbourkat pour le moment mënatuñ ci jot dara parce que lépp tout est suspendu. d'accord kon arrangé wul la commune. Mhm. arrangé wul le collectif de Mbourkat. d'accord est-ce que yaa ngi gis. Mhm. beneen bi dañ fa am ay projet balaa projet yi sax affaire bi cees la ne lool wax naa ko aussi. Mhm. donc Thiès waa foofu moo fa des pour am kër su foofu weesoo kenn mënatul am kër. Thiès mën a def recours. donc ngalawaay. président buy séddalewaat parcelles yi. Mhm. la ca ëpp na dellu ci waa Thiès. Thiès yi toll ci am kër samp kër te mënuñu am kër nañ leen bàyyi xel mooy ñun ku ci nekk maire yi man en commençant par moi parce que maay prioritaire parce que sama commune la nekk. Mhm. dossier yi ma jotoon à parce que nit ñi bi ñu déggee di déclassé nañ ko dañu riir si fax si ñëw ci sama commune di fa déposer pour am parcelle. dossier yooyu yëpp tamit nag demande yooyu yëpp def jox ko direction domaniale ba nekk Thiès. Mhm. pour mu jox ko comité ad hoc bi président yónni woon. d'accord ñooñu tamit ñëpp xaj nañ foofa ca Mbourkat parce que c'est plus de 3000 hectares. Mhm, bari na 484 mhm. hectares yi ma tudd léegi. ak cent hectares yi nekk Nouvelle Ville. kon xaj nañ fa. donc Thiès yi def seen i demande pour attribution de parcelle mhm. nañ leen jox parcelle ñu dëkk Mbourkat parce que ñoo ko gën a yeyoo keneen ku dëkkul Thiès beneen bi projet yi ñoom mhm. waaj Mbourkat projet yi bokk na ci bi gën a rëy te soxal ma mooy te koy porter depuis lors mhm. mooy parking gros porteur wax naa léegi li tax ma defar boulevard Boubacar Sall camion gros porteurs yi ñoo fa nekk gis nga noonu ñuy def foofu ci boulevard bi noonu la ñuy def ci quartier Thiès yëpp ne ci grands ko de façon anarchique di fa def lu nekk mu nekk source d'insécurité donc bokk na ci ñaxtu yi gën a jot dans commune communes loolu la. d'accord ñu ni ñun bi ñuy campagne déjà. Mhm. ba toog ci la ñu waxoon dañuy def parking bi ñu toogee ñu identifier benn zone à Mbourkat boobu defaguñ déclassement faf déclassement bi ñëw yóbbaale zone boobu de dix hectares maintenant dans le plan de la nouvelle ville mi ngi ci def nañ ci boo ko xoolee ñi am carte bi. def nañ ci parking gros porteur de 10 hectares lenn rek la ñuy ñaan président te wax nañ ko comité bi. Mhm. titre d'attribution bi. nga xam ne dañ koy jël. muy këyit ñu jox ko commune bi ni ko yaa moom 10 hectares yi commune Thiès Ouest loolu la ñuy xaar pour démarrer nos travaux. parce que première phase du marché. Mhm. pour démarrer taxaw na mhm. décaissé nañ ko. ba marché bi joxe nañ ko. c'est-à-dire passé nañ marché bi. ba jox ko un promoteur ba mu gagné ko de 50 million suba suba suba suñ jotoon këyit gi. Hmm. ginnaaw suba promoteur bi mën na commencer liggéey. d'accord kon moom te loolu bu ko defee c'est pour l'intérêt de Thiès. moo leen yitteel. Hmm. loolu mu ñuy projet boobu. Hmm. c'est un de nos projets phares. de notre mandat. d'accord.